illallah àddina bi yëpp ëllëg koy coloniser lii dana am de digg Paris Paris tey jumaa mi ngi foofa la boo demee Milan jumaa mi ngi fa Rome jumaa mi ngi fa boo demee Lyon Marseille Londres nga dem ba digg New York Chicago Californie Los Angeles dem ba Sydney ci Australie lépp jumaa mi ngi ca digg capital ñu naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah bekkeroog benn xale bu dëkk fii taalibe li ci kër gi mi ngi nekk Taïwan mu ngi may naan dama julli ji woon jumaa ci dëgg réewu chinois yi nga xam ne gëmuñu dara bu dul Bouddha dem ba jumaa am foofu xale bu tuuti bu jóge ci dëkk bi fii ne dama génn sama kër dama julli woon juma fekk mu ngi dellu fekk ñun ñu ngi ci min wi ci guddi ñoom ñu ngi ci midi ci bëccëg kon mbokk yi diina gi dina tasaaroo de tubaab yi ci seen bo bopp ñu ngi tiit teetaanga boo xam ne dem nañ ba léegi centre culturel yi nekk biir Europe ak Amérique lépp dafa fees ak alquran ñu ngi koy jël di jàng di tuub rek ñu ngi koy jël di jàng di tuub rek xanaa ummatu Muhammad ñoo doonagul ay njaatige waaye surga yi bari nañ de nañ topp yàlla yàlla ne na lépp ummatu Muhammad ñoo koy dese sallallahu alayhi wa wala xat ci dëgg-dëgg katab naa bind nañ fi zaburi ci téere yu njëkk ya min baadi zikri gannaaw ba leen yàlla waxale ay nomm nommam ay bëgg-bëggam ak i bañ-bañam yàlla nee na leen ànnal arda naka suuf sii yarisuha dana ko donn si ibaadiya samay jaam astaalihu na baax ñi ñoo koy mujjee yàlla nañ ci yàlla boole yaram rabbi hmm? suuf sii nee na ummatu muhammad ñoo koy mujje màkka bi nga xam ne bu muhammad doon sujjut ci weti kaaba gi ñu jël ay butitu xar ay butiti gëléem sotti ko ko tey ay million nga nit moom lañuy wër naan labbayka allahuma labbayka inna fi haza aji nekk la ci lii la balaaran ak jotal li qawmin ñee doomi aadama yi ne abidina ay jaamu yàlla la wa ma arsalnaaka yebaluñ la yow muhammad illaa rahmatan bu dul ngay yërmande lil aalamiina ñeel doomi adama yi Muhammad yërmaane moo ko andi kon bu leen naaguloo kenn diw dafay naan sàngara nañ ko jegeñ waxal ko buñ ko naaguloo ne ko yàlla dootul a jéggal déedéet dit diw cagala dafay njaalo jege leen ko ngeen waxal ko conséquences yi ci nekk mu dugg ci diina kii sàcc nañu dem ci biir kaso yi def fa ay jàkka jox leen ay sëriñ ñu waar leen bu ñu génnee ñu jëriñ société bi bu ñu naaguloo kenn lu waay def lu bon lu waay def lu bon nañ ko xëcc lislaam yokk yàlla jéggal kooku la waaye xas ngaa bon xas ngaa bon bu ñu defee loolu mbokk yi du baax de waa yonent yàlla ibrahima newoon na yàlla abal ma malakut fu ma tollu di gis yàlla jox ko malakut mu toll daal di gis benn waaye mu ngi nële ci benn réew yore butéelu sàngara di ko naan mu ne yàlla seetal kii bu demee ci mbooloo nekk jullit bu duggee ci néegam di naan yàlla rey ko waa ji daanu pip ñu dégg jël ca kër ga daal di ñëw fekk muy kaddi kaddi ñu ne du jomb alcool bi mu naan dafa varié ndekk du alcool Ibrahima moo toll fa mu toll ñaanal ndekk yàlla dindi na kiiraay yi nekk ci kanamam yépp bëtam xotti na néegi xotti garab yi mu gis am benn waaye bu jëm ci alalu jàmbur mu ne yàlla seetal kële mi ngay jël lu mu dencul yàlla rey ko yàlla daal ko koy rey waa ji daana bët seet ñu ne ah xanaa waa ji mankaana moo nekk ci alalam gi moo te waa ji de ndeke déedéet Ibrahima moo ko ñaanal mu dee mu gis am ku taxaw ak jabaru jàmbur na yàlla seetal kii bu borom këram feeñoon léegi mu daw seetal mu koy woo ngir ñu jàll yàlla rey ko yàlla na ko déedéet ku am maam bu baax am nga maam bu bon ma reyoon maam yu baax seet yu baax yi bàyyee ma samay jaam kon tuub leen ngeen dellu ci yàlla lu ngeen munti def ak lu mu doon rëccu leen bu démb doon tey duma ko defati bu démb doon tey duma ko def fasal yéene li des sama dund dootuma ko defati nga bàyyi ko ci saasi nga jooy jooy mooy bunt bu njëkk ci bunt tuub bunt rëccu boo rëccoo rëccu mooy bunt bu njëkk ci tuub boo tuubee nga bëgg yàlla boo bëggee yàlla nga yegg ci borom bi subhaanahu almuhibuuna humul waasiluun hmm? kon bu leen naaguloo kenn daa nga naan sàngara bu tuubee yàlla jëkkal na ko daan nga sàcc waaw xul waxal innama yuuhaa déet bu dul dañoo juux ilee ñoo ci man annama ilaahukum déet seen borom ilaahun waahidun yàlla kenn la benn la te lenn la fa antum ndax yéen muslim la du ngeen jébbalu yàlla ne na jébbalu leen nga dégg ñu naan jébbalu kéeféer moo koy def wala jébbalu euh, faas kàccor moo koy def ne jébbalu daganal dagan na de te yow boo feebaree nga dem ci hôpital fekk xale bu tuuti sa moromi doom la nga daay tëdd ci siis bi ne ko aslamtu nafsi mu ne la subbil sa mbubb nga summi sa mbubb sa dana ne dung ci biti mu ne la summil sa tubéy papa baal ma nga summi sa du nga summi ko saqatal tuuti nga saqat tuuti papa nokkil tuuti nga nokki tuuti mu daal di jël pusoom boobu daal ko dëbb sa yaram ah yow nga nangoo ne aslamtu nafsi ci zahir ci doktooru àddina nga gis doktooru yàlla nga xam ne moo xam lan mooy génne kañaan ak mbon ci nit lan mooy génne rëy rëylu lan mooy génne weddi yàlla lan mooy génne sikk sàkk ak déng-déng nga ne boo ne ko aslamtu nafsi da ngaa def yëfu kéeféer kon lu tax ngay ne aslamtu nafsi ci docteur bi déedéet wa in bu ngeen ne waqeet bañ a jébbalu faqul neel azantukum man day jox naa leen àddu naa ci yéen diglu naa ci yéen ala sawaay ñépp a ci yem maa ngi jëm ci yéen yàlla bu jëmee ci nit te du jàmm doo am jàmm de wa in adri man muhammad tollu ma ci xam aqaribu ndax aji jegeñ la am baidin wala aji sori la maa tuadun li ñu leen di dig innaw naka moom yàlla yàlla yàlla mu xam na aljahar li feeñ minal qawli ci kàddu wa yàlla moom moom yàlla xam na te dana wéy di xam maa taktu mën na lépp lu ngeen di nëbb wa in adri man yegguma ci bërëb boo xam ne danaa ndar kepp mbir yi la àlla du jomb li ngeen may laaj fitnatu léj la lay doon bu dikkee la kom ñeel leen wa maataawoon àddina gi yóbbal la ilaahin ba diir su tuuti xul neel rabbi sama borom taxkum na nga atte bil xaq ci dëgg wa rabbana suñu borom arrahmaan mooy aji yërëm bi almustaan mooy ku ñuy sàkk ndimbal ca moom alaama tasif na ci li ngeen di mellal saar boobu wéy na suñu xisib wéy na ñu dàq suñu la xisib ci saar boobu la ñuy jeexale surtout xaj aj màkka mbokk yi alal gi ñuy denc ci banque yi lu ñu tee ñu aj ci màkka suñu gétt yi lu tee ñu aj ci màkka kër yi ñuy tabax te bu ëllëgee ñu génnee ñu ci lu tee ñu aj ci màkka yi suñu tool yi waaye foog ne dem aji màkk yàq alal la jël million ak genn wàll dem wër kaaba gi rek daal di ñëwaat ñu ne alxajji nga téye ne loolu gaspillage la te alal gii nga denc bés dana ñëw ñu wàcce la lal bi te yaa ko jëndoon génne la néeg bi yaa ko tabaxoon génne la kër gi yaa ko sancoon génne la dëkk bi ci nga bokkoon duñu ñu tala lekk duñu ñu tala naan bu du gas ba mu xóot dugal la ca dellusiwaat kon saar bi yàlla mi ngi ciy wax aj màkk nañ ci bàyyi xel am na bàkkaar yoo dara mënu ko jéggale bu dul nga taxaw ci arafa mbaa nga wër kaaba gi julli maqaama ibrahim naan zam-zam daw dem musdalifa dem muna dem arafa dem ziyaara ji bàmmeelu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa ku am lii loo ñàkkati waaye nay alal gu leew de boo demee te yóbboo alal gu leew boo ne labbayka yàlla ne laa labbayka wala saadayka soxlaw ma la woow la woo nga ma wuyu la yal nañ ci yàlla musal ya rabbi kon sooratu aj mi ngi noonu danañ ca dikk ca biir bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kàttan ak sañ-sañu borom bi bisimilah yàlla dong mooy buur ku dul yàlla kese nga neen la bu yàlla sampee kenn munta sempi waaye bu yàlla sempee kenn mënta samp rahmaan teraangay àddina yépp yàlla koy rate moo koy jox te ñépp bokk yem ci rahim yàlla suñ boroom mooy ñenn ñennal ñamu soob yowmal qiyamati yaa ayoon naasu doomi aadama yi ittaqu ragal leen rabbakum seen boroom ragal leen yàlla ragal ki ragal yàlla ragal ki ragalul yàlla inna zalzalata saati naka réngi réngi tukki àddina àddina bu buggee tukki ni muy yëngoo nee na bés boobale dara du taxaw ci kaw suuf si garab yépp daañu daanu néeg yépp daañu daanu teen yi danañu sakk géej yi danañu maaseloo daal di ŋacc teen yépp danañu sakk daldi di yowmal qiyaamati dikk na yàlla ne na keroog inna zalzalata saat naka yëngu-yëngu tukki àddina shay'un mbir la azimun gu ngand lool yàlla nag lu mu ne ngand na ngand na de mbokk yi yow bés boo xam ne taraw na keroog bu ngeen demee ba di gis yowmal qiyaamati bu àddina di tukki tazhalu dana gëlëm tazhalu dana naax tazhalu dana teqalikook sagoom kullu muur di ati nàmpalkat bu nekk dana am am amma ardaat la mu doon nàmpal danga gis jigéen jël dindi doomam ci weenam daal ko sànni waaw jigéen na fi muy dindee doomam ci weenam sànni ko jàmm xew na fa gisoo boo dàqee golo dàq ko ba mu xam ne léegi nga jot ko dafay woqati doomam daal ko sànni nga jël doom bi bàyyi ko bu demee ba àdduna di tukki tiitaanga boobu danga gis jigéen doom bi nekkoon ci weenam di ko nàmp dana ko xacc daal di ko xonc sànni ko daw jigéen bi ëmboon bu ëmbam ñoree ak bu ñorul dana ko wasin ci saa si ngir tiitaanga wallahi dana sippi dana wasin mu ñor ak mu ñàkk a ñor dana wasin kullu xam xamlin bépp bor mu ëmb dana wasin xamlaha la mu ëmboon wa taran naasa da nga gis doomi aadama yi sukaaraa nga fone dañoo mandi wa maahum déet ñoom bi sukaaraa ñuy way mandi ku jóg daanu ku jóg daanu mandi wuñu de walakin waaye azaballaay mbugalu yàlla shadidu moom métti rek yàlla nañ muhammad teeru keroog yaa rabbi wa minan naasi am na ci doomi aadama yi man ko wax ne yu jaadil dafay diingat di weddi fii laay ci yàlla bi xayri elmin fekk teg ko ci benn xam-xam naan moom philosophe la matérialiste la wala idéaliste la moom philosophe la moom communiste la ah déedéet gisoo ñi andi woon xalaat yu bon yëpp dee nañ ca kenn toppatu leen am na ku ñu doon tuddee Frédéric Engels mu bindoon benn téere tuddee ko livre blanc di contour yàlla ne diina amul Karl Marx daal di ñëw bind lu gën a métti bosam am ku ñu tuddee Vladimir Lénine ca 1917 moo njëkk a révolution bi ci union soviétique ku ko wuutu rek gën a wax lu bon ne yàlla amul waxuma ay yonent yonent amul yàlla amul daal di def seen benn réew tuddee ko union soviétique muy fukki réew ak juróom moom Lénine ba mu deeyee am ku ko gën a kàccoor daal di ko wuutu ñu ko tuddee Staline ñoom Khrouchtchev ñoom Brezhnev ñoom Tchernenko André Pof Alex Kosogin di bind rek di wedd diina waaye tey réew ma toj na ñu mel ni ñu jafru kenn ku nekk jël na kaakeem def réew boppam képp kuy weddi yàlla danga tas sa mbooloo lu mu bëri da nga seey seetal réewu Russie dem na ba am juróom benn million ci bopp nucléaire benn bi rek mën na tukki la àddina tey nu ñu mel raaf na ba jeex takk te Amérique ñemul woon taxaw seen kanam Amérique dafa réewoon làmmañ rek waaye ñemul woon Russie benn yëngoom xajul ci ñoom tas na te doon ay réewu réew kon weddi yàlla lu dëju ci kawam dana mujj seey moo tax yàlla suñu borom nee na wa yattabi dana dana am kuy weddi yàlla naan moom philosophe la man matérialiste la man idéaliste la René Descartes nee na Napoléon lii la waxoon Jean-Jacques Rousseau ñoo ñëpp ay seytaane la wa yattabi di topp kulla seytaanin bépp seytaane maridin gu fettéeral ku ti yàlla bindeef na dogaleef na ali ci doomi aadama annahu li fi ne ba nekk fi man képp ku méngoog seytaane fa annahu naka yu dillu dana ko sànq wa yahdi dana ko jéggat jëme ila azabi sayri jëm ci mbugal mu koy mooñ yaa yoon naa su yéen nit ñi in kuntum ndéem nekk ngeen fii raybin di sikk sàkka minal baasi ne ku deedu du dekki wallaahi ku dee dana dekki fa innaa naka ñun xalaq naa ko bind nañ leen min turaabin aadama ci suuf kese laa ko bind hmm? li lay won ne nit cosaana mooy suuf da nga jël rajo nga ubbi ko boo laalee rajo yi baat bi dolleeku boo ko bàyyee baat bi wàññeeku da nga jàpp yenn kanaal boo ko laalee baat bi wàcc boo ko bàyyee baat bi yëkkatiku dafa am lu nekk ci suuf ñu koy naan oxyde silicone dafa bokk ci yi composé rajo te loolu moo nekk ci biir yaramu doomu aadama yenn jamono dana ko manqué boo ko laalee bi nekk ci sa yaram daal di ko yokk baat bi yokk boo ko bàyyee mu daal di ko manqué baat bi wàccaat doomu aadama kon ci suuf la bawoo yàlla nee na seen cosaan ci suuf la bawoo ma topp min fatin ñu génne leen ci toqant maniw li ngeen naan x ak y hmm? bu bii duggee muy góor bu bii duggee muy jigéen ñaar bu ñu bokkee dugg muy góor ñaar yi bu ñu bokkee dugg muy jigéen benn bi benn bi bu ñu bokkee dugg muy góor ak jigéen bu benn duggee muy benn ñu koy naan euh, spermatose walla mooy euh, li ñu tuddee xayawaan manawiya benn góor gu nekk sa diggante juddoog sa dee boo motee ñeent fukki at rek sa awra mun na cee defar lu toll juróom-benn million waaye lépp mënut a doon doom jigéen li mu ciy defar ci dundam dana dem ba ñeent junni mun na ko defar li ñu tuddee buway buway da ñu ko tuddee ovule weer bu nekk bii togg beneen weer bii togg bu bële duggee ci bële mu daay doon doom ndax doomi aadama yëg na li kan moom mos a wax ban heure la mun ban heure la ëmb wala ban heure la soxnaam ëmb déedéet ah minute fatin ngeen jóge ci benn toqantu maniw su ma topp min alaqatin am na ñu koy firee ne mu doon benn ndawal du ndawal de min alaq gis nga ni ku tuddi ajoo ci ci ron genn xar weteñ du xam ngeen weteñ ni weteñ di ajoo ci biir ci ron genn fas wala nag noonu la doom di ajoo ci ruuxu mu yaayam daal di ci tag noonu la min alaq alaq mooy lu aju médecine dem na ba soo ko gis léegi te lislaam waxoon na ko ci junni at ak ñeent téeméeraat fekk ay ñii feeñaguñu ñi nga xam ne ay appareil lañu yore hmm? kon su ma toog min mudratin yàlla def ko lumb jël suux dugal ci biir yax jël caas teg ca jël ndawal teg ca jël sidit teg ca daal di jël der teg ca xotti nopp ba doom nekkee ci biir yaayam jumba xam lay lekkee moom lay naane gémmiñ gi du lekk de la yaay lekk bu wexee moom du yëg wexaay ba la yaay naan bu bu safee kaani moom du yëg kaani ba lépp mi ngi jaar ci jumbaxam ci quantité bu mu soxla lii la jamono mu tëddee ndeyjoor lii la jamono mu tëddee càmmoñ moo tax jigéen dana xam li mu ëmb waaye xelam moo ko dul mën a joxe res res dafa sedd wàll ndeyjoor la nekk xol dafa tàng wàll càmmoñ la nekke doom bu dee góor la comme tàngoor la soxla mu ngi tëddee càmmoñ ngir xol gu mu koo jox tàngoor poids bi yépp fii lay nekk jigéen bu jëlee siwo bu boobaa fii la koy jëlee ngir mun a équilibre déjà xam ne na moom li mu ëmb góor la ndax fii la tëdde te lu tëddee fii góor la bu dee jigéen la jigéen bu seddee dafa war a sedd bu seddul dafa war a sedd te res ndeyjoor la nekkee doom bu dee jigéen la ndeyjoor lay tëddee bu boobaa poids bi yépp fii lay nekk jigéen bi bu jëlee dara fii la koy jëlee ngir mu mun a équilibre anakan moo xamal li yaramu jigéen bu dee doom bu nar a dijji yax la yaay bi dafay ànd ak xelam dafay teey muy wocc rek ndax li ñu tuddee calcaire dafa nekk ci biir yax bu pënd boobu jógee rek ci biir doom ji bu ko duggee xelam dafay tey muy wocc bu fekkee doom bu nar a bari kawar la dana gis yaayam xer ñeen ñi di ko dal xer ñeen ñi di ko dal waa lii lépp seetal fi yàlla jaar jigéen kon jigéen ñi ndax waruñoo gëm yàlla seetal bi doom di dugg fi mu duggee ak lu tool ni doom ni mu ngandee fi mu génnee te buy génn muy dellu ni melaat kon bu jigéen gëmul yàlla kan moo war a gën a gëm yàlla ah muxallaqa am na doom yoo xam ne yàlla dina leen bind ba seen bind mot ñu judd wa xayri muxallaqa am na yoo xam ne seen bind du mot dañu leen di boos ñu dee li lépp li nu bàyyi na ngir ñu biral lakum ñeel leen wa nu xéru danañu saxal fil arhaami ci ruuxu mu jigéen ñi maanaam lu ñu soob ilaa ajalin ba jëm ci dig musamman gu ñu tudd ñii juróom benn weer ñu wasin ñii juróom ñaari weer ñu wasin ñii benn at ñu wasin su ma nuxrijukum topp ñu génne leen tiflan ngeen doon aw liir daawoo dégg mu dégg loola daawoo gis mu gis loola ba ngay judd amoo bëñ mu mujj daal la may fanweeri bëñ ak ñaar fukk ak juróom-benn ci kaw fukk ak juróom-benn ci suuf yii ay reewu la dafay dagg bëñ yi sell la dafay yëy bëñ yi ay dëgëj lañu dañuy mokkal anakan moo leen natt noonu bu dul yàlla su ma topp li tabluxu dangeen dem ba joti ashuddakum seen dëgg-dëgg doole dana am ku dem ba màgget am ay sët wa minkum am na ci yéen man yu tawafaa ku yàlla di rey mu judd rek ñu ne dellu na wa am na ci yéen man ko wax ne yu raddu dees na ko delloo ila arzalil umuri ba bedd ga gën a doyadi mu dem ba mu jannaax li kay laa yaalam dana mujj dootul xam min baadi elmin gannaaw xamam chey an dara wa taral arda da nga gis suuf si xaamidatan muy aji giim bu demee ba diggu noor walla cooroon nga gis suuf si yépp mu ngi ne kunus dara nekku ci waaye fa iza anzalna bu ñu wàccee al aliha ci kaw suuf si al ma ndox bu ñu wàccee ndox ak ihtazat daal di jungaamu nga gis suuf si commencé jungaamu di jóg hmm? wa mu daal ne tàcc wa anbatan mu sax mu saxal min kulli zawjin xeet gu nekk bahijin gu taaru yi saxal gàncax bi bu ngeen dee moo leen di dekkilaat zalika loolu mooy bi na laa naka yàlla huwal xaqu mooy dëgg wa annaw naka moom yàlla yuhyi mooy dundal almawta waay deey wa annaw naka moom yàlla qadirun dogalaakoon la ala kulli ci mboolem mbir boo jëlee kaas nga galan benn bant ci biir nga jël ñett doomi ñebbe bii nga jam ko ci biir ndox mi bii fi ndox mi di dajoog ngelaw li bii ci kaw bi ci digg bi mooy sax bi ci kaw am na ngelaw am na suuf waaye amul ndox dafay wow bi ci biir am na ndox am na suuf waaye amul ngelaw dafay nëb bi ci digg bi nag am na bërëb am na ngelaw am na ndox mooy sax nga ni yàlla tërale ku ko dindi rek du baax foog ngelaw ak ndox ak béréb dajaloo gàncax soog a sax walla yàlla nee na wa na saata tukkik àddina aatiyatun luy dikk la laa rey ba déet sikk sàkk fiha di ca nekk wa anna allah naka yàlla yabasu yàlla dina dekkil man fil quburi ñi ci bàmmeel bi yépp danañ génn kenn bu la jën won noon it danga nga génnaat nekk nit bu la gaynde fàddoon da nga génnaat nekk nit bu la safara lakkoon ba nga nekk doomitaal da nga judduwaat nekk nit rek wa mina naas am na ci doomi aadama yi man ko wax ne yu jaadil fu mu nekk mi ngi diingat lay ci yàlla rek di contre ah, yàllay sëriñ si sëriñ si dañoo am yàlla bu dul yàlla bi nga am yow hmm? fekk bi xayri elmin ko ci benn xam-xam wala hudan du jàggan njub wala kitaabin du jàggan téere mu nirin bu leer saani it fayhi foo gis muy lem ñaari wàllam rek mu ngi xëcc mbubam di diir dënnam ah sa njëlbeen di maniw sobe sa mujj di midd liyu li di ngir mu sànk an sabillah walis yoonu yàlla lahu dana ñeel képp kuy contre yàlla fi duniyaa ci àddina gi risyun ak gecc wa nuziqu danañu ñamal doomi aadama biy weddi yàlla yowmal qiyaamati azabal xariqi mbugal muy lakk yàlla tooñul de zalika loolu bi maa qaddamat yadaaka say loxo ko jiitaloon wa anna laa naka yàlla lay sa nekkul bi zàllaamin di aji tooñ lil abidi ñeel jaamam yi wa min yàlla ngi wax loo xam ne kéemtaanu na am na koo xam ne bu amee lu neex rek muy jullit waaye bu amee lu naqadare fàttali bu amee lu neex mu ne julli la bu amee lu naqadare jeex na am na koo xam ne moom bu amee problème lay dem ci jàkka yi te kurus yu ngand di fett bu dóore nga foog ne bali kanoon bés bu demee ba jekk am la mu bëgg def ko na ñukk fële dootu fa jaarati mu lii am na ci doomu aadama yi mhm. ndeysaan wa minan naas am na ci nit ñi man yaabudu kuy jaamu allah yàlla ala harfin ci pet ci wàll fa in asaaboo xayrun bu amee jàmm it ma an na mu teey bii ca loola la wa in asaabul fitnatun bu amee fitna in xalaba mu woññar bi ko ala waji ci kanamam xasira perte na adduniyaa wal axira ak alaxira zalika loolu alxusraan mooy pertaanga almubinu gu biir yadu una ñu ngay woo di jaamu min dun ñu ngi jaamu loo xam ne maa laa yaduruhu du ko jëñal lor fama laa yan faw te du ko xaccal njëriñ zalika loolu xuwa dalalu mooy cànkute almubin gu sori njub yadu dana di woo moom doomi aadama di jaamu ay xamb ay xërëm li muy woo laman loo xam ne daruhu loram aqar bu moo gën a jegeñ min naf yi ci njëriñ ba la biisa aka ñaaw aka bon almawla ci sang góogale wala biisa aka bon alasiru ci àndaale góogale inna allah naka yàlla yaf al yudxilu dana dugal allazina amanu ñu gëm hmm? wa amanu sal dañuy jëf lu baax aaya bi wàcc na ci alquran ñeent fukki yoon ak juróom-ñaar lislaam dowul diine teglante sa loxo rek déedéet lislaam liggéey la bëgg Seydina Omar ba mu nekkee xalifa dafa dem ci jàkka ja mu fekk ay gars ñu ngi toog foo téye seen course jàkkaarloo penk bi mu ne lu ngeen fi wut mu ne ko dañuy jaamu yàlla mu leen ku leen di dundal ñu ne ko ah, diw de mooy andi aw yekk mun naa ci jóg ci biti jóg leen liggéey bu ñëpp defoon ni yéen diina du yegg sa fi dem leen liggéey dem leen ñàkk ngeen tedd ngeen liggéey ngi ngeen jëriñu bu Muhammad defoon ni diina gi du yegg sa fi kon dégg nañ ko moo tax nitu yàlla yépp mbey jàngale jaamu yàlla waare lii moo doon seen dund amuñu woon dara bu dul lii moo tax dund nañ ci ngor dee nañ ci ngor waaw tey nag dañoo yàkkamti kurus tey dañoo yàkkamti der bi ne foog ñu yéeg ci kaw siis bi politiciens yi seen siis ku ci bugg a yéeg da wax lu wóor de <laughs> da wax lu wóor tey yow nit yàlla gi yàlla xañu la dara tey ji xalifa bi ci Tuuba xalifa bii ci Tiwaawan bu woowoon bu woote woon léegi dañuy ñun ñooy fay suñuy paas dem joxaat ko addiya waaye kii fi toog nii fii bu wowoon nit ñi moo leen di fayal paas te bu ñëwee mu daal leen neexalaat lu ko mooy bu wootee dootuñu dikkaat walla nitu yàlla bu wootee nit ñooy nit ñooy paasal seen bopp bu ñu dikkee joxaat ko ngir yàlla waaye nitu àddina bu wootee mooy fayal gaa ñi paas te bu ñuy dem mu feesalaat seen poos lu ko mooy beneen bu ñu wootee du dikk kon ku am yàlla loo ñàkkati dara yàlla dina dugal ñu baax ñi aljana aljana boo ci duggee doo feebar doo ras doo kotom doo ràgg doo aajowoo doo ëmb doo wasin amul guddi amul bëccëg du noor du cooroon du lolli noo bëgg fa nga nekk noonu lay mel góor ñépp ci ñeent fukki at ak ñeent jigéen ñëpp ci fanweeri ak ñett hmm? tajri di daw min taxtiyaa ci ron aljana al anhaaru loo a naan lii sàngara la boo ko doo biiñ boo ko naanee doo taqamtiku boo ko naanee ah. lem la lii soow la lii ay njar la inna laa naka yàlla yafalu maa yàlla mooy maa tey fekk benn waaye am juróom-ñeent doom muy ñaanlu ngir nef metti na ci soxnaam mi ngi def planning mi ngi wut ay gàllaaj ji takk yàlla may ko beneen muy fukki doom mu ñëw fekkee waa ji benn doom mu daal di ko rey mu toog loxo neen faalu li maa yuridu waaw kenn mënu ci dara waaw mu fekk koo xam ne dëkk yëpp moom lañu yaakaar mu rey ko bàyyi fa ñi nga xam ne macha allah macha man kaana képp ku nekk yazunu di foog an lan yansurahu llaahu yàlla du dimbale seydina muhammad ci àddina gi wax nga lu la neex wal axirati muhammad mooy jiite àddina mooy jiite àllaaxira kuy jéem nag ne lu diina muhammad du sotti fal yam du na tàllal sababam bi sababin ay buumam na ko tàllal jëm asamaan su mal yexta na jéem a seet ndax mun naa dog diggante yàlla ak yonante bi wal yanzur na xool xal yusiban na ndax mun na demee kayduhun na seen pexe maaya riisu la ko naqadi wala la koy xunjuloo wa kazalika mbokk yi mbir mango anzalna wàcce nañu alquran aayaatin mooy ay aaya bayinaat yu leer nañu juróom benn junni aaya juróom benn téeméeru aaya juróom benn fukki aaya ak juróom benn wax na àddina wax na àllaaxira xam-xam boo jàng boo dikk ci alquran taalibe ngay doon boo jàngee chimie nga jàng science naturelle nga jàng fisik astrologie jàng mathématique sociologie psychologie jàng jàng jàng littérature loo munti jàng boo dikkee ci alquran da ngay nekkaat taalibe bu tuuti boo xam ne mosoo xam dara seetal commandant Jacques Cousteau français la ku dem ba nekk commandant ci armée bu France géej gi àddina gi yëpp dugg na ci biir benn aaya moo ko tuubloo marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaqun laa yabriyaani aaya bi rek la tuube Muhammad musta gis géej naka lay xamee ne océan Atlantique ak océan Pacifique seen ndox du benn te océan Atlantique mooy bii jaar Dakar dem Paris wàccaat dem ba Afrique du Sud océan Pacifique mooy bi jaar Amérique digganteem ak Asie Mohamed musta yegg Jidda te Jidda fa la géej nekk océan nekk lan moo xamal Mohamed océan benn bi moo gën a tal ndox yi beneen bi rab bii dund fa la dund ci bii ndox mi moo gën a xorome bi bii moo ko gën a néew naka la Muhammad xamee gàndax gi naka la ñuy dóore te moom musta yegg ci géej waaye bañ ko wonee aay bi ne ko aay bi waxoon nañ ko ci junni at ak ñeenti téeméer at yu jiitu dafa nan laay dugg ci diina ñu ne ko ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nii la tuubee dugg ci diina dem ba nekk général armée française géej gi fépp dugg nga ci moom commandant Jacques Cousteau mu mujj a tuub kon ummatu muhammad fu ngeen jëm téere gi bàyyiwul dara xanaa julli di ñooy nelaw rek yàlla nee na la ñuy jaamu wal nasaara ak nasaraani wal majuus ñi nga xam ne safara lañuy ñuy ñi nga xam ne ay payan lañu ay animiste lañu wala zina ko ak ña bokkaal ak yàlla yàlla nee na gisuma kenn ku dul ku ma gëm bu yeboo nga doon yahud bambara séeréer tubaab japonais yàlla nee na loo askanoo yaa ko xam waaye boo ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah rek yàlla ne kenn gën laa jegeñ keroog inna laa naka yàlla yafalu yafsilu dina teqale bay baynoom seen diggante yowmal qiyaamati inna laa naka yàlla shahidun aji seedale ala ci mboolem mbir sujudu dafa naan hmm? hmm? tara ndax gisoo anna laa yàlla sujud dafa soreetul alam tara ndax gisoo an na laa naka yàlla yasjudu dana sujjuut lahu ñeel ko man fi samaat ñi ci asamaan yépp danañ sujjuutal yàlla man fi lard ak ci suuf jant bi mi ngi sujjutal yàlla wal qamaru weer bi mi ngi sujjutal yàlla wan nujuma biddiw ñu ngi sujjutal yàlla wal jibaalu dojji wa shajaru garabi wa dawaabu jur yi wa kasirin lu bëri minan naasi yéen dënde ah Hmm. waa kasirun ak lu bari mën a naas ci nit ñi wa kasirun lu bari xaqa yey na ali ca moom azab mbugal wa man yuhinullaa képp ku yàlla doyadil ku yàlla toroxal fa maa law di ko ñeel min mukrimin keneen ko ko mën a teral inna laa naka yàlla yafal mooy def maa shaaw lu ko soob yàlla nañ ko sujjuutee déwén suñu bàkkaat yëpp yàlla na ci sippeeku suñu maqaama yëpp yàlla na ci kawe dafa am téere yoo xam ne seen sujjutuwaay du benn ci riwaayatul wars ak xafsa ak xaaluun ak yeneen yi <coughs> moo taxoon may laajte xaasaani ñaari nit a ngi nii xasmaane ñuy xuloo ah ixtasamu ñu ngi xuloo fii rab rabbim seen boroom kii naan yàlla am na kii naan yàlla amul fa lazina kafaru ñi weddi yàlla xuti at daa di dogeef lahum leen siyaabun malaan min naarin ci safara yàlla na ne ñi weddi yàlla seen tubéy safara lay doon seen mbubb safara lay doon yàlla nañ ci dégg doy yu sabb di xelliweef ni ngay xellee warga ci biir kaas noonu la ñuy xellee min fawqihim seen min fawqi ruusim seen kaw bopp alxamim safara suy ndox muy bax baxi yusxaru mooy ruyal bii ci ndox moomale maa fi butunin li seen biir wal juludu seen der yépp dana kotom seen kaw ngir safara wala hum dana dana leen ñeel waa safara makam yu ay mbolde al ay mbolde yu rëy la malayka yore min hadidin ci weñ kullama araadu saa suñu nommee an yaxruju ñu génn minaa ci safara min rammin ngir xunju ga uidu daal leen delloo waa feet fiihaa ci safara waa safara bu ñu lakkee di lakk ba ci kanam ñu ne nañu nañu nañu yolleeku daal di génn ngir noppalu ñu dajak benn zabaane boo xam ne mu ngi yore mbolle goo xam ne bu ko tegoon ci àddina gi ñépp danañ ko sëqatoo te ko mën a yëkkati dana ko ne cas dumaa leen ko danga gis bopp soppeeku doon tànk wala tànk daal di dikk doon bopp fan la nit jëm keroog te dee amatul laa yamuutu fiha wala yaxyaa yàlla ne leen wa zuuqu ñam leen azaabal xariqi mbukal mbugal mi di lakke inna laa naka yàlla yudxilu dana duggal allazina aamanu ñu gëm yàlla wa am lu saala ñu def lu baax jannaatin ay aljana aljana yoo xam ne tajri dana walangaan min ci ronam al anhaaru ay déeg yu xallaw na dinañu takkaayu fiihaa ci aljana min asaawira ci ay lam min zahabin lami wurus wa lu'lu ak ngalam ah? moo tax mu araam góor bu mu takk lam ci àddina bi góor takk lam dafa araam jaaroo te nay xaalis te na ko def bu mu paase ñaar dërëmu tëgg walibaasum seen col ñoom waa aljana fiiha xarirun mooy malaanu sooy wa hudu daal di leen jëggat jëmee ila tay bi jëm ci lu teey minal li ci kàddu malayka yi gàttanu leen wa hudu daal di leen jëggat jëmee ila siraatul hamidi ci yoon ngoo xam ne yoon gu yàlla sant la inna lazina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla wa wa yasudduna ñuy gàllankoor nit ñi an sabilillah walis yàlla wal masjidal xaraam bu ñu gisee ku bëgg a aji màkk wala dem ci jàkka yi ñu bundaxatal la hmm? seen mujj dina ñaaw de te ñun léegi lii la dund suñu làmb yi ci wetu jàkka yi lañ koy tëgg nga gis mbër mu daal di bokk ba ñàq daal di dem saw ci wetu jàkka ji yéen ñi ko organisé du ngeen jéggi siraat mukk bu lu yàlla duma leen suñu biiralee ci weti jàkkee lañ koy tëgg suñu mitin yi ci weti jàkkee lañ koy def képp kuy toroxal jàkk di tëgg ci weti jàkk wala di def musique ci weti jàkk balaa ngay dee da nga laagu sa mujj dina ñaaw yàlla dina dindi barke sa kër dootoo avancé ti mu allazine jàkka ja nga xam ne jaal naaw def nañ ko sawaaun mu yemoo ci al akif ki nga xam ne dafa ñëw samp ngir jaamu yàlla fii wal ak ki rot si wa man yurit képp ku bëgg fii ci néegu yàlla bi ilhaadin bugg faa andi njatamal di njatamal julli di ci seen jàkka yi bi zulmin ngir nga tooñ leen nuziqu danañu ñamal kooku min azabin ci mbugal alimun gu métti yonte yàlla ibrahima mi ngi noonu la di laabal kaaba gi ngir ñiy jaamu si yàlla wa fàttalekul is ba waana ba ñu sancalee li ibrahima makaanal bayti won ko palaasu kë néeg ba fekk ba tuufaan dikkee yàlla dafa yéegal kaaba gi ci kaw am na ñu ne mooy baytil maamuur mooy kaaba gi nekk ci juróom-ñaareelu asamaan seydina ibrahima mu ngi ca wéeru xale yi dee te muskal yàlla moom la leen dénk mu leen di waxal kan mooy yàlla kan mooy seydina muhammad moo sa ku sa doom dee fekk xale bu tuuti la jarul di ko jooy jarul sa xol di ci naqadi bu yomal xiyaamatee bu ñu nekkee ci kaw aljana ñu gis seen papa yi nekk ci biir pënd gi gis seen yaay yi nekk ci biir pënd gi dañu ne ah yàlla kële de sama baay la kële sama yaay la yàlla ne bu leen fa dem foofu yomal xiyaamati la coono la gudul dakkati toog leen fi ñu ne déedéet yàlla danga defoon sama baay ñàkk ma nga def sama yaay ñàkk ma tey jii nag gis naa sama papa ak yaay damay bokk ak ñoom seen coono ga wala ñu bokk man sama bànneex bi yàlla na kon kenn ku nekk ci yéen na ji loxo baayam àndi ko kenn ku nekk ci yenn na ji loxo yaayam àndi ko lii neex na nga wàcc ci dëkk boo xam ne xamoo fa kenn am ku ne papa andil ma gàddu la sa walit lii de galaas la am naanal waa loolu mbokk am na lu ko gën a neex kon nga wàcc àllaaxira xamoo fa kenn sa doom ñoo téye sa loxo papa fii la mbokk yi lii xéewal la de moo tax xale bu faatoo jarul jooy wala loolu déedéet suul ko suul gu rafet nga dellu nga ànd ak xoli muñ bu ëllëgee da nga bokk ci ñooñale moo tax bu ñuy jullee xale dañu ne yow yàlla yàlla na ko yéegal ci ñi naa Ibrahima yore di leen yar waaye doomu njaalo dafa bokk de doom bu judduwul ci biir alxayru du fa dem de déedéet kooku du fa dem de sobe la yàlla nee woon na ibrahim an laa tushrik bul bokkaale bii ak man chey an ci dara wa tax na nga laabal bayti sama néeg bi te mooy kaaba gi bu ci xëram nekkati li taa'ifiina ñeel ñay tawaaf wal ne ak ñi taxaw di ko xool wa rukaa ak ñay ruku as sujuud ñay sujuud yont yàlla ibrahima ba mu tabaxee kaaba gi ba pare yàlla ne ko taxawal ci kaw maqaama ibrahim nga woote ba mu taxee ci kaw maqaama Ibrahim euh, di woote mu ne yàlla sama baat du joti yàlla na ko woote yow la war jottali man la war waa ji sonn na loolu yàlla na yàlla fay la yaa rabbi ñun ñu ngi toog yaa ngi dox rek te yëguma ko woowuma leen li tax ma wax loolu ngir balaa am ñuy bàkkaat dafa am ñuy def ni yóbbu ko ci réewu arab yi ñu jox ay millions ñu ñëw tabax ay kër takk ay soxna xam daanaa leen gis ci réewu arab yi ñu ma xam man sama bopp dajale ay nit ñuy ndogg nga photo leen yóbbu ko ci réewu arab ne ñi ñëpp man maa leen di dundal foto ay xale ñuy maaj nga ne ñi ñëpp ay jirim lañu yóbbul ko milliardaires yi ñu jox la ay téeméeri million nga ñëw tabax école arabe bu tuuti dem ci dëkk yu mag yi tabax ay état jënd ay pachero di ko dawal li bokk ci de man woowu ma ko xaw ma ko boo ma laajee turam xaw ma ko moo dikkal boppam yal na yàlla fay leen yaa rabbi coono gi ngeen ci daj seen coono àddina yal na yem foofale ni mu taaroo yal na yàlla taaral seen àddina taaral seen àllaaxira teeleel noonu mbir mi alal yi ngeen di gis du alal yu leew de bu ngeen gisee ñii ci réew arab yi da leen di jëppi ñu ngi gàddu seeni saak yore ay jumaa lay tabax ay jardin d'enfants lay tabax ay centre sociale lay tabax ñuy buddi di leen jox rek ku ci ñëw dem tabax këram ba mu mel ni panaal mu tabax lu tuuti bu ñëwee ñu won ko looleel seen mujj dina ñaaw bu leen def loolu nit mun naa am alal fekk mu leew te fenoo wala di dundee ñàq julli di yàlla nee nag wa azin na nga woote fi naas ci nit ñi bil xajj ci aj màkka yaatuukat nañ la dikkee rijaalan ñii dañuy dox ak seen tànk wa ala kulli daamirin ñii dañuy war ci ay gëléem yu woos ngir diggante soriwaay diggante réew ak réew yaatina danañu dikkee min kulli fajjin jóge ci ay xàll ba amiirin xàll yu xóot a xóot di ñoo màkk ñi dañuy dox li yashhadu ngir ñu seede manaa fi ay njëriñ lahum ñeel leen wa yaskuru ñu mën a tudd ismallaay turi yàlla fii ayyaamin ci fan maadlu maati yu ñu xam ya ala ma razaqnahum ala ma razahum ca lamu leen wërsëgal min bahimatil anaami ci juri kër yi fa kulu lekk leen min ha ci seen tabaski yi fa kulu lekk leen ci seen njot yi wa atimu na ngeen lexal al baisa baadoolo bi al faqira ki ñàkk sa tabaski nang ci may baadoolo yi nang ci may ñi ñàkk su mal yaqdu nañu weyal tafasom seen ñukk boo ajee ba aj bi jeex nga soog a wot say faas say mustaas jemp say kawar wal yuufu nañu motal nu zuram seen nisër wal ya tawafu nañu wër bil bayti ca néeg ba al atiqi te mooy kaaba ga néeg ba yàlla goreel zalika loolu la yàlla digle wa man yuazim képp kuy màggal xurumaatullaahi or may yàlla yi fa huwa moom xayrun lahu dana am yiw inda rabbi fa boromam hmm? wa la yàlla daganal na lakum ci yéen al anaamu juri këri xar béy nag gëléem yàlla daganal na ko ci yéen doomi aadama illaa xanaa maa yutlaa aleykum la leen yàlla di leeralal si fajtani bu na moytu a rij sa sobe minal awsaani ci xàmb ak xërëm wajtani bu nangeen moytu xaw la zuuri kàddu neen xunafaa na ngeen tegu ci yoon lillaay ñeel yàlla xayra mushrikina bu leen bokkaale bii ak yàlla wa man yushrik képp ku bokkaale bii ak yàlla hmm? foofu la de kuy bokkaale ak yàlla mi ngi mel ni nga jóge ci étage étage yooyu ñu tuddee gratte-ciel téeméeri étage yi nga xawee ko di daana balaa ngay yegg ay picc di la dóor ci yoon mi nga dogatoo doon ay saam-saam yàlla ne na métit boobu ku bokkaale ak yàlla métitam yeggagul foofu la yombal xiyaamati kon balaa la waman yushrik billaah képp ku bokkaale ak yàlla fakk maa mi ngi mel naka xara dafa xaw yekku mina sama jóge asamaan fa tax tafu di ko di ko kalli kalli ak tayru njanaaw yi aw tax wi wala di rotal bi ca moom riixu ngelaw la fii makaan ci bërëb saahiqin sahiqin gu xëcc zalika mi ngi noonale mbokk yi bokkal yàlla baaxul wa man yuazim képp kuy màggal shaaira la màndarka yàlla yi fa inna loolu min taqwal qulub mi ngi bokk ci ragal yàlla boroom xol gu leer moo koy def jàkka yi caaxaan warut am ci wetam jumaa yi noonu fépp fu ñu ne fii bërëbu yàlla la dañ ko war a ormal bu ñu fa tëgg bu ñu fa fecc bu ñu fa tàcc kon na ngeen góorgóorlu néegu yàlla yi ngeen ormal leen néegu yàlla yi ay malayka dañ cee dëkk malayka yooyu boo àndee caaxaan dañu ne yow yàlla sa néeg bu sell bi ki koy tilimal yàlla na mu jëm ñaaw te malayka lu mu ñaan lu mu ñaan dafay am ndax tilimuñu lakum ñeel na leen fiihaa ci jur yi manaaf yu ay njëriñ ilaa ajalin ba diir musamman ga gu ñu tudd yàlla nee na su ma topp mahillaa boo aji jee màkka ngay rey sa gàtt ilal baytul atiqi nanga nga moom ci xurumu màkka ba ca urumu kaaba ga wa li kulli ummatin askan bu nekk jaal naa defal nañ ko man sakkan anamu jaayu yin Sénégal bu ñuy julli ñu ngi jàkkaarloog fii doowul ne jant bi la ñuy jàkkaarloo la déedéet kaaba gi Sénégal ak Mali ak Guinée ak Mauritanie ak Gambie ba ay Côte d'Ivoire dem ba ay Nigéria ay Libye Égypte ñoom bu ñuy julli fii la ñuy jublu ndax jant bi fii la leen fare waaye lu mel ni ay Chine ay Inde pakistaan lu mel ni ay Bangladesh jàpp ay Vietnam ay Corée Japon dem ba réew yooyu ñoom bu ñuy julli ci sowu jant la ñuy jublu ngir kaaba gi solo leen fare ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ay Malaisie wala jàpp Brunei dem ay Indonésie wàcc dem ba ay Thaïlande euh, mooy réew yu nekk ci suuf ay Mozambique ay Afrique du Sud ñoom bu ñuy julli ñu ngi jubloog wàllu gànnaar bi ngir màkk fii la leen fare boo demee lu mel ni ay réewu Turquie dem ba ay Hongrie Bulgarie Yougoslavie Tchécoslovaquie dem ba ay France dem ba ay Suède Norvège Finlande yéeg ba ay Allemagne ñoom bu ñuy julli ñu ngi jàkkaarloo wàllu Saalum ngir foofu la leen kaaba gi fare moo tax yàlla nee na askan bu nekk ak fu ngeen nekk ci àddina bi sàkkal naa leen fu ngeen di dàkk jot ci kaaba gi kon du ci penk bi lañuy ñuy juble penk bi nii la fii mooy xibla bi yàlla suñu borom nee na li yazkurullaha ngir ñu tudd yàlla ala ma razaqakum ca la mu leen wërsëgal min bahimatil an'am ci juri kër yi wa ilaahukum seen boroom ilaahun waahidun yàlla kenn la fa aslimu na ngeen jébbalu lahu ñeel yàlla wa bashir nanga nga bégal al muxbitiina waaye toroxluy ngir yàlla allazina ña nga xam ne iza zukirallah bu ñu demee ba tuddee yàlla wajalat daal di pat pati xulubum seen xol ñii ñooy julli di koo xam ne bu déggee yàlla rek xolam pat pati wa saabirina ñay muñ ala ma asaabahum ca la leen jot wa muqimi salaati di joxe julli wa yunfiqina ñuy jëriñe mimma razaqnaam ca la ñu leen wërsëgal wal budun yàlla ne na gëléem yi ngeen di rey ca màkka jaal naa def nañ ko lakum ñeel leen min sha'airillah mi ngi bokk ci màndarkay yàlla lakum ñeel na leen fiiha ca ya di rey xayrun yiw waskuru na ngeen tudd ismallahi aleyha bu ngeen di rey seen gàtt yi sawaafa mooy lu ñu jéng benn tànkam bàyyi ñett tànk yi ah gëléem bu ñu koy rey gis ngeen ni ñu koy defee dañ koy locc fa isa wajabat bu demee ba xawweeku junubaha tëdd ci wetam fakkulu na ngeen lekk min ca moom wa at imu ngeen lexal alqaania ah ki xaaraan si na ngeen ko lexal wal mu'tara ak ki nga xam ne dafa gaar si kazalika noonu la yàlla digalee saxaraha lakum yàlla tàggatal na leen jur yi la ko ngir yi ngeen lekk ci tashkuna ngeen mën a sant yàlla yàlla mi ngi ñëw ci tabaski tabaski am na ñu bëri ñu ngi tabaski amuñu tabaski tabaski duñ ko bokkaale duñ ko def société da koy jënd ak alal gu la lew ci mazhabu imaam wala nga jël xar ñëw ci kër ne soxna si madame sa tabaskee ngi nii buñ ko reyee madam moo am tabaski waaye yoo amoo ni tabaski waree ci kaw góor noonu la waree ci kaw jigéen xale gu amagul papa ak yaay gu amul seen doom buy tabaski doy na leen bu papa di tabaski doy na yonte yàlla muhammad nee na ahsinu dahayaakum fa innaha la siraati matayaakum am na beneen xadis mu ne tayyibu na ngeen rafetal seen tëbëski bu yomal xiyaamate moom la yàlla di dajale muy seen war waaye moom ngeen di jéggee siraat waaye boo amee ngénte nga rendi xar goo xam ne mu ngi mel ni gëléem bu tabaski dikkee nga seet bu yooy daal di ko rey nga yafal xar ba mu duuf nga dem jaay ko ay junni nga jënd bu kooñoor ñëw teg ko bu yomal xiyaamate nga war ci bu kooñoor rek safara di la lakk nii rek nii rek képp koo xam ne yàlla may na la nga war a rendi tabaski te doo ko rendi tabaski doo dee ci alhamdulilah at bu nekk dangay ngay ne daaw moo gën ren kon dégg nañ ko kon na ngeen ci góor góorlu ngeen ci góorgóorlu lan yanaala laa du jot ci yàlla du jot ci yàlla luhumaa ndawal bi yàlla du ko lekk wala dimawaa deret bi du laal yàlla kon lan la yàlla soxla ci Tabaski walakin waaye yanaalu dana jot yàlla at taqwa ragal yàlla bi tax ngeen def ko minkum ci yéen hmm? kazalika mbokk yi mbiri nii la saxaraha yàlla tàggat na loolu lakum ñeel leen li tukabbirullaa ngir ngeen màggal yàlla ala ma ca na mu leen gindee ci solo wa bashir na nga bégal al muhsinina waaye yiw yi inna laa naka yàlla yu daafiu yàlla mooy sàmm mooy défense yàlla mooy aar yàlla mooy jëñ xam ne la dina amul ñu gëm yàlla yàlla moo leen di aar mhm. amul benn nitu yàlla bu dul ñu ngi jéem ci yow ñu ngi la booleek service des renseignements sa dugg ak sa génn yëpp ñu ngi koy bind ñu ngi la booleek ay espion di la booleeg ay agent secret foo dugg ñu ngi même jotaay bi am na ku dem fekk sëñ Touba ba gànnaar ñu ngi ko bind ci minanul baaqil xadim fii siirati xayril xadim bàyyi ba xaaji guddi mu téye na ñëpp tëdd nañ mu jël jaasi ne dafay boom si ku makk ba mu xàccee rek yàlla xam li ko téye ci kaw loxo bi takk gàdd gi yëpp daal di daw ñëw fekk foofu foofale mu daw dugg ci mbooy kii fi nekk daawati jéeg amul ku jël ngànnaay ne daf koy faat ku sell kii amul benn nitu yàlla nga yëg ko nga ñàkk ko yëg ñu ngi jéem lu la faat waaye wallaahu yaasimuka ko naasi koo muntatee mu judd munoo ko tee mu jàng mu ne ko mo tee mu woote ci yàlla xanaa bu yàlla tegee bakkanam sa loxo bu leen am tiituwaay bu leen am ragaluwaay anawaa rek ci yàlla yoon gi ku ragal bokku ci ku yàkkamti bokku ci képp ku yàkkamti bokkoo ci waaye képp koo xam ne tàppet nga dangaa ragal bokk ci dellu leen ci yàlla waay yàlla mooy sàmm julli di inna laa naka yàlla laa yuhibbu yàlla du baaxe du jàmmal kulla xawaanin képp kuy wuuru jaakoon kafuur kuy weddi waakoon usina digaleef na lillazina ña nga xam ne yu ñu ngay jihaad julli di jóguñ ci seen plaisir bopp de bi annahum naka ñoom zulimu tooñeef na leen wa inna allah naka yàlla la qadirun yàlla dogalaakoon la ala nasrim aji attan la ala nasrim ci dimbale leen lu tax julli di di jihaad allazina mooy ña nga xam ne uxrijoo génneweef na leen min diyaarim seen këree bi xayri xaqin fekk teguñ ko ci benn dëkk illa an yaqulu lu dul dañoo ne rabbana allah suñu borom mooy yàlla lii moo tax ñu génne seydina muhammad yàlla mooy sama borom hmm? wala laa cey bu nekkulan daf ul naasa daf ullaahi yàlla mooy défense al naasa nit ñi baadum lenn ci ñoom bi baadin yàlla mooy sàmmee ñii ñii am na ñoo xam ne ñu ngi toog buur moo leen toogloo am na xam ñoo xam ne ñu ngi toog borom alal moo leen toogloo am na ñu dal sëriñ moo leen dalloo ah, waaye du ragal yàlla de yàlla nee na moom mooy jël buur di ko sàmmee baadoolo mu jël sëriñ di ko sàmmee jaahil mu jël mag di ko sàmmee gone yàlla nee na bu sàmmuloon nit ñi la hudi man néga ni màbbeef na sawa miu cathédrale yi te mooy li ñoom Isaa yore woon wa biyaw dana fekk jàngu yi màbb na wa salawaatun fa ñuy jullee dana fekk màbb na wa masaajid ak jàkka yi nga xam ne yuskaru dees na tudd fiha tur yàlla yàlla dafa bëri am na lu ñuy tuddee aljaamia mooy jumaa am na lu ñuy tuddee masjid mooy jàkka am na lu ñuy tuddee zaawiya nit ñi dañ ko yàq naan jaawiya du jaawiya zaawiya la am na lu ñuy tuddee musalla am na lu ñu tuddee tikaaya booy dem ci mbedd Dakar yi da gis ay tikaaya mooy fu nit ñi di dajaloo rek di waxtaan bu waxtu julli jotee ñu dugg foofu julli loolu mooy tikaaya jaamuwaay yàlla yi du benn dafa am jumaa am masjid am zaawiya am musalla am tikaaya kon yàlla ne na jàkka yi ñuy tudd tudd yàlla nii man yàlla may ki ko sàmm hmm? lu yus yuskaru ñuy tudd fiyaa ci jàkka yooyu ismullaay tur yàlla kaseen lu bëri aayangoog yàlla nee na bu ngeen ma dimbalee ma dimbale leen ana nu ñuy dimbale yàlla mooy ñu nekk ci kaw ndigalam bu ngeen béyee rek ma tawal saxal gàncax yi mu ñor boo jàng jee métier ma saxal ko sa bopp boo tiimee alxuraan ma mokkal loola boo demee ci géej gi nga sànni mbaal ma may la jën yàlla ne wala yansurannahu wala wala yansuranna allah wallaahi yàlla dina dimbale man yansuruhu ki nekk ci ndigalam inna laa yàlla la xawiyun yàlla ku dëgër la kenn mënu ci moom dara ku mu àndal kenn mënu ci yow dara waaye azizun yàlla mooy ku tedd ku mu teral nga tedd ku yàlla teddadil kenn mënu laa teral yàlla bu ñu yàlla teddadil allazina ña nga xam ne in makkannaahum bu ñu leen jàppandalee fil ardi ci suuf si aqaamu salaat dañu taxawal julli wa aatu zakat dañu joxe azaka wa amaru ñu digle bil maaruf ci lu baax war na xaw ñu tere anil munkari ci lu ñu sib ah walillahi aji sax la ñeel yàlla aqibatul yi mujj waay mbiri wa in yukazzibuuka bu ñu la fenloo yow muhammad njëkkul ci yow de faqad kazzabat fenloo woon nañu xabloom ñu leen njëkk xawmu nuuhin nuux ay nitam fenloo woon nañ ko wa aadun fenloo woon nañ yoon ci yàlla huut wa samuud fenloo woon nañ yoon ci yàlla saalix wa xawmu ibrahim ñooñ ibrahima fenloo woon nañu ibrahim wa qawmu luutin ñooñ luut fenloor na yonent yàlla luut wa asxaabu madyana waa madyana fenloor na yonent yàlla bu wa kuziba fenloo weefoon nañu muusa kon yow muhammad bu ñu la fenloo muñal fenloo woon nañu la jiitu fa am laytu ma niig niigal lil kaafir na ñeel yéeféeri su ma arastum topp ma ne nuus jàpp leen fa kay fa kaaw téef xoolal kaana naka la nekkee nakiir yi sama mbugal nakiri sama duma nakiri sama lu naqar ni ma koy tegee ñu bon ya yàlla nee na dëkk yu bari teraanga mi ngi fa woon ñu ñàkk ko waaye yàlla nee tooñu ma leen de ñoom ñoo tooñ seen bopp ah am na dëkk yoo xam ne daawoo gis dëkk ba ngir garab yi meññ am na dëkk yoo xam ne boo gasoon teen boo yeggee sa baat nga am ndox mu neex bay wala nga am na dëkk yoo xam ne loo bayoon mu nangu nit ñi dañ doon wut si ci yéen waaye ñu mujj di wuti ci ñeneen yàlla ne dañoo bàyyi yoonu yàlla ma duma leen duma yàlla mu andi leen bekkoor du may yàlla garab yëpp dee duma yàlla ngeen ñàkk teraanga duma yàlla ñi ngeen doon ñee ñi leen doon ñee wëlbatiku di leen yërëm yal na yàlla musal ci loolu waka ayin bëri na min xarit na aw dëkk ahlak naaha alag nañ ko wax ya dëkk ba na aji tooñ la woon wax ya dëkk baa ngoog xaawiyatun di aji mabb ala urushiha ci ay téegam dëkk ngi ni dëkk goo xam ne yàlla dafa yebaloon ci ñoom yonante bu ñu tuddee xansalatu bun safwaan guddeeg bëccëg mu leen di wax yàlla ñu mere ko daal ko rey sànni ko ci biir teen ba keroog la dëkk bi ñiisee amatul ndox keroog la dëkk bi ŋaccee amatul ndox taax yépp keroo la ràppee nit ñi keroo la ñu alko danga gis xale bu tuuti judd rek daal di bejjaaw ngir alkande bejjaaw yépp du leeru yàlla de am na bejjaaw yoo xam ne ñàkk koy def ah, ah. ah am na bejjaaw yoo xam ne coono gu ëpp moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne joote moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne jaaxle moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne yàgg ci géej nekk navigateur moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne xalaat gu ëpp moo koy def am na bejjaaw goo xam ne yërmande yàlla la yal yàlla def suñuy bos boobale yaa rabbi euh, ngeen bàyyi seen xel ci bërëb wax mooy àndi wax wat sikkim ba mu jeex daganul de déedéet daganul de yonent yi kenn mosu ko def nitu yàlla yi xuuf mu jeex mosuñ ko def gisoo banaa lislaam di ñëw même balaa lislaam di ñëw ci jamono yéeféer ku mag ba dee te amoo sikkim du ñu la doon suul ci biir dañu doon gas paxi guy dugal la ci mel ni jongo ma saa soo xëyee nga ñàkk dépasse moo la dàqal lancet boo xuufee dafa aram de démb ba yonte yàlla Muusaa di jàpp ci sikkimi Haaruna du jàngoon nañ ko fa lañ ko tudd de wot sikkim ba mu jeex takk lislaam daf ko teg yonent bi nee na na ngeen lëwal seen sikkim yi tey jemp naanuy wuute leen ak nasaraan nasaraan dafay dindi sikkim guddal mustaas waaye yéen na ngeen guddal sikkim tey wàññi mustaas lii la lislaam digle kon dégg nañ ko mbir mango ak ku koy def na lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu dagal waaye lu baax bu ko ñëpp bàyyi yoon du tax mu bon kon ñu góorgóorlu yal na yàlla dimbale ñu yaa rabbi yàlla suñu borom nee na wa fàttalekul bi irin teen ba mu atta la kero la teen ba yuqeel dara nekkatu ja wa xasrin seen taax ya ñu dëkkoon masjidin ya ñu téegoon lépp kero la jeex waaleykum salaamatullaa ah nel ah? Euh, nel mus na am ndax yonent yàlla Muhammad dafa am hadis bu ne sib nañ ko waaye kër ba Jaafar faatoo Jaafar màggu Seydina Aliou la mu ngi daanu ca Muuta Muuta la daanoo moo mag Seydu bun Haarisata ak Abdullahi bun Rawaxata ñoom ñett ñépp kër Muuta lañu ñu daanoo ba ñu dikkee na yonante bi Abbas faatu na kii eh, Jaafar faatu na dafa ñëw ci kër gi mu dajale doom yépp daal di leen wot nel ne bu kenn togg ci kër gi na ñëpp togg di leen andil ñiy wotu fa lañ ko teg ne kon aayul bu aayoon yonante bi du ko defal njobootu abbas kon dégg nga am ñu ne dafa bëggoon ñu xàmmee leen defal leen ndimbal ngir seen bàyyi dem na am ku leen mën a jot waaye aayul neel aayul dégg nañ ko waaw aayul